bëgg nguur par tous les prix bëgg nguur boo xam ne dootoo leen préserver benn duñu préserver benn valeur. donc da jàpp ne peut-être discours religieux bi la ñuy dugal foofu pour jaxase. pour jaxase man benn doomu Sénégal kese laa demoo fa en tant que politicien wala lenn ndax ba ma duggee ci jàppale Adji Sarr laa wàccee sama bopp ci lépp luy politique. Mhm. ndax bañ ñu utiliser ko contre Adji Sarr wax ni kenn contre euh, la mouvance présidentielle mhm. wax ni que ñoom ñoom ngemb ak ñoom parce que loolu la ñu commencé woon di wax. dinañ dinañ ñëw ci loolu. donc c'est pour vous dire. Mhm. on est gravement menacé par des individus. Mhm. yoo xam ne amuñu benn formation benn niveau jànguñu il n'ont jamais prouvé être en mesure de se prendre en charge eux-mêmes parce que balaa nga wax ni da ngay jël ay nit en charge tey fekk nga mën a jël sa bopp en charge. comment maanaam nga mën a fayal sa bopp lu yaas par exemple nga mën a subvenir à par toi-même. man j'ai été dans la ban lien la am ak politique bi ñuy def ñoom. ban lien la am boo waxee ne danga nga bëgg a yokk ab askan. Mhm. war nga mën a yokk sa bopp. c'est-à-dire si t'as si t'as failli à te même mhm. waroo mën a prétendre. mais lu la tax a wax loolu justement. dama lay jox exemple Ousmane Sonko. Mhm. parce que dama nekkoon même situation ko moom. j'étais en désaccord ak ni état bi di doxee. ni ma gis ni muy doxe dama génn kenn mësul cotiser un franc. pour ma pour sama survie dama débrouiller sama bopp dundal sama bopp dundal sama njaboot kenn mësul gis ma def ket jubale ko si sama bopp Ousmane Sonko ba mu génnee fonction publique ba tey tàllal loxo lay dundee ay militants may. mais est-ce que c'est pas volontairement les militants mais même si c'est a mais c'est pas éthique c'est pas une euh, du du image bu rafet parce que bëri na fii leader politique yoo xam ni comme Ousmane Sonko. dañoo nekkuñu bi euh, yoruñu benn tank tànk dañu ñooy liggéeyal seen bopp di dundal seen bopp. mais est-ce que amul lien ak le fait que il porte le projet d'une jeunesse boo xam ne ñoom il s'active euh, euh, d'une manière énergique pour. il prétend porter le projet il le dit de manière euh, péremptoire parce que je pense pas je ne pense pas qu'il ait des sondages qui attestent de cela aux dernières élections. Mm-hmm. cette jeunesse n'a pas jugé utile d'aller s'inscrire pour le, voter pour lui. D'accord Parce qu'il se prévaloir de la... Il, il, ne cesse de se prévaloir de la Pourtant, jeunesse. avant-hier, il y a une euh, évaluation, un sondage. Quel organisme la presse l'a largement relayé. Non, je vous dis, parce que sondage, on sait qu'on euh, mm -hmm. peut commanditer un sondage. Mm -hmm. Moi, je peux faire un sondage. il suffit que je paye le prix. Mmh. Donc c'est pas parce qu'il y a au sondage que automatiquement c'est parole biblique euh, ou parole d'évangile. Mmh. C'est pas quelque chose qui est sorti du Coran. <laughs> Cette vérité-là. Mmh. Euh, je veux dire man mi ko man au début mi ko doon jàppale bu ñu koy defal ket ma koy partager di jël image am di ko associer ak sama profil. et j'étais bien plus présente que ñi mu ñu ko ñi mu àndal tey donc bu ma toogee def demi-tour bëgg woon Sénégalais yi attention réfléchissez tel point qui n'est pas cohérent tel ou tel point est préoccupant waxuma nit ñi dañ ko bàyyi de dama leen di tegal maanaam damay duut baaraam ci lépp li nga xam ni c'est inquiétant. donc bëgg rappeler à la raison. j'ai essayé de de les rappeler à la raison. Mm-hmm. et j'ai failli ils sont ils parce que en fait c'est c'est un problème d'incompétence mm-hmm. et un problème d'inintelligence une intelligence de la réalité qui est la nôtre. une intelligence de la psychologie et la sociologie de notre société parce que bu xamoon wax bu ñaaw bii muy jël ay nitam di ko jël quotidiennement di ko teg ci ay doomu askanu Sénégal boo ko defee man Françoise yaa ngi foog ni Françoise rek nga nekk di wàññi doolem pour mu taxaw xeex ak yow mais am na ay milliers sénégalais gis nañu li ngay def Françoise dañuy sot et c'est comme ça qu'il de plus en plus en train de perdre des gens ay nitam ñooy génn di ma baalu ak parce que dañoo am ay bërëb yoo xam ne biir Facebook fa la ñuy dajaloo pour dajale ay photo yu ñaaw di ko jëmale ci si man ak sama njaboot ak samay waajur di ko def ay képp bépp sénégalais bu am sañ-sañ taxaw wane ni que àndoog Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko yàlla suñu borom mi ñu sàkk xam ne moo ñu sàkk. bu bëggoon à la seconde ku def lu ko naka mu wàññ mu génne la àddina pourtant daf ñuy seetaan jox ñu chance mu kon euh, fay àddina won ñu dayoom ni mu toll ak li mu représenté pour ñun les humains mais moom mooy le seul homme politique nekk opposition bëgg imposer sénégalais boppam imposer sénégalais yi ses lacunes imposer les sénégalais benn genre omerta omerta boobu nga xam ni par exemple moom la mafia euh, sicilienne wala euh, la Camorra mm c'est-à-dire que doo wax boo waxee ñu rey la mhm. parce que menacé nañ fii ay journalistes de mort man on me menace quotidiennement léegi jot naa lu mat ay peut-être une dizaine de menaces de mort mhm. ci ndax entre démb ak tey dem naa Touba donc loolu dafay nekk loo xam ne dafa rafet euh, donc ñoom il faut ñu wëlbati ko ba mu ñu diaboliser ko ba mu nekk lu ñaaw mais ki nga xam ni dafa nekk katolik jël démb gis nga ni mu tàngee démb naaj bi ni mu tàngee yendu dawal otoom dem ba Touba dox ci tàngaay bi dugg honoré sëriñ bi vénéré ko ak ki nga xam ne ay militant am dañuy nekk bi réseaux sociaux di dingat sëñ bi di werante ndax moom lañu delloosi delloo si est-ce que dellu na Touba di diggaat sëriñ bi quotidiennement bëgguma jaar parce que jaar ci wax yu ñaaw yi mais ñëpp mën nañ ko vérifier boo leen duggee Facebook képp ku saaga waa Kër Sëñ Touba ci Ousmane Sonko la bokk le le le maître na Akhenaton la tudd gis ngeen ko bilit ak photo moom Ousmane Sonko hmm. ñoom donc c'est des ils travaillent ensemble léegi Ousmane Sonko. léegi ay eh, dama bëgg a wax ni rek la magie euh, Hélène la magie la magie de internet aussi c'est ça mën nga jël sa photo mën nga bokk ci. def montage contre Sonko. Mhm. mën nga nekk contre Sonko. mais nga jël. no li euh, may wax photo de profil. non non non photo Sonko non bokkul profil. non non man li may lay wax nii. Hmm. c'est vérifiable ki nga xam ne moom mooy euh, le premier ennemi. Hmm. waa Kër Sëñ Touba Akhenaton la tudd. Hmm. keneen ki jawul may jaar ci turam parce que damay may nit ñi ay. publicité mais il peut y avoir des faux comptes aussi. non non non moi je te parle de comptes réels. des gens qui font des lives. je te parle pas les faux profils ne font pas de live d'accord. Hmm. les faux profils en général tu n'entends pas leur voix. je suis en train de te dire que ñooñu ils préfèrent salir. Hmm. la dignité et l'honneur de Touba et quand ils voient benn catholique au nom des principes. parce que man dama gëm le dialogue interreligieux ma gëm Serigne Touba li mu liggéeyal. la cohabitation interreligieuse. interreligieuse ñu bëri nañ dialogue ça c'est pas le bon mot. a, on va même au-delà euh, du Ousmane Sonko ak ay fedayinam ñoo koy ñoo koy yàq. su ma jógee man dem Touba xoolal dem pour màggal. sëñ Touba Xadim Rasul mu métti ay nit ñoo xam ne 24 heures vingt 24 dañu koy jéem a di saaga di jéem néewal doole njabootam est-ce que moom kan la ñu a dans ce dans ce rapport là kan la Sénégalais yi dans cet esprit de co cohésion Sonko la ñuy wax. kan la moom c'est mais je veux dire que c'est grave. Mm-hmm. quand on utilise la visite. d'une sénégalaise à Touba pour dire que dafa takk euh, croix. croix amul et que mais man dewuma fa en waxuma ni damaa bu doon damaa wax ni dama tuub. Mhm. nekk musulman nekk tudd faat euh, Mame Diarra Bousso après ma dugg ci foofu noonu bërëb bu sell bi takk croix je comprends mhm. que ñu mën koo ressortir. mais à quel fa demee. mais parce que dama bëgg sëñ Touba ñëpp xam nañ ko ci man mhm. saa yu ma ñëwee Sénégal dem Touba. c'est pas la première fois mais c'est la première fois que ma dugg kër sëñ falu xalifu sëñ euh, Fallou sëñ Abo bi maa ngi koy gërëm di ko sant mhm. yàlla na fi yàgg te wër yóbbu ba ci biir moo ma dugal ba ci xabaru bi mhm. tasewu maak moom sax ci jumaa ji mhm. loolu pour te dire que ñoom ñooy déformer les faits et c'est comme ça qu'ils veulent changer ce pays là en, en, en, en calomniant, en diffamant, en humiliant les citoyens sénégalais qu'ils veulent euh, administrer. Mm-hmm. sëñ Abo tas jegewul sax tasewuma ak moom ci jumaa ji mm-hmm. dañ ma yóbbu pour ma ziyaare ko yaa ngi dégg mm-hmm. mu gis xëy na ni damaa bëri kersa mu yóbbu ma mu sant ñu yóbbu ma foo xam ne dina mën a wax ak moom gis nga nañ ko transformé ne sëñ Abo moo ma dugal ci bërëbu sëñ Tuubaa bi jël ko di ko associer ak les symboles de la christianité pour mettre en mal ces deux communautés. D'accord. Et tout mhm. pour des raisons politiques. Donc c'est pour vous dire ñii ni ñu dangereux pour la société sénégalaise l'inconscience et l'immaturité de ces gens qui ne comprennent pas que am na loo xam ne kenn du foog moom. Mhm. am na loo xam ne nit du ko utiliser même bu fekkee ne da nga ci mën a am bénéfice politique. Mhm. moral ak éthique ak enjeu yi mu ëmb ëmb war na tax ba loolu nga moytu ko donc vous voyez le risque que le Sénégal court avec des gens pareils à nos, à nos, au, au, au sommet de notre nation vu aussi le contexte xam ne les pays limitrophes sont, euh, sont en proie avec des menaces liées au djihadisme mm. n'est-ce pas à, à, à, le, au manque de tolérance mm. au manque de tolérance de la différence mm. donc ces gens-là aussi crée, aussi euh, je, je vais irascible à la différence, aussi capable d'instrumentaliser et de transformer des faits, ba bana, euh, faits banals en, en, en crimes. Amplifier quoi. Amplifier quoi. Mmh. salir quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'on risque avec des gens comme ça, avec, ayant sous leur contrôle la police, la gendarmerie, et ayant des caisses mm. pour pouvoir alimenter tous ces milliers de de criminels à leur solde. donc da nga bëgg wax ne y a pas espoir avec Pastef actuellement. non absolument c'est le pire c'est le plus grand péril que le Sénégal n'ait jamais couru. pourtant dañuy prôner panafricanisme nationalisme toutes les valeurs yi nga xam ne mën na tax peut-être Afrique mais yow booy prôner. quelque chose il faut le personnifier par tes actes il faut rendre ça concret par tes actes mais tu ne peux pas professer quelque chose et que tes actes. témoigne toujours de l'opposé et c'est ça le cas balaa nga balaa nga laax caay laax lekk balaa nga bëgg Afrique nga bëgg sénégalais mais yow sénégalais bu àndul ak yow sa noon la pare nga lakk ko pare nga taal këram pare pare nga rey ko mm. pare nga euh, déchoir ko de sa nationalité et tu veux parler de africain mais attends soyons soyons sérieux très bien alors euh, euh, ñu fàttali euh, Françoise que ñu ngi recevoir ci seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 Françoise Hélène Gaye nekk présidente bu collectif pour la défense des droits de Adji Sarr en parlant de Adji Sarr ce cet épisode là jotoon na tenir en haleine le Sénégal et l'Afrique sax booy xool et le monde politique Absolument. mondial euh, mooy euh, événement yi amoon le mars euh, c'est un peu la conséquence de ce euh, cet épisode judiciaire bi nga xam ne am na concernant cette affaire Ousmane Sonko sànq wax nga ci wàllu lacune bi nga xam ne Ousmane Sonko làmboo na ko ak ñu mu àndal affaire Adji Sarr bi jàppoon dafa nekk un peu euh, manifestation lacune yooyu parce que bu ñu nee homme politique nga nekk benn espoir. Mm-hmm. ngay euh, dem ci yenn bërëb yi euh, na ko na ko ko gisee. dafa loolu c'est une constante chez Ousmane Sonko. Euh, une constante maanaam lacune yi immaturité bi. D'accord. boo bëggee nekk président même bu fekkee ni gondwaana. ay nit ngay jiite il faut yow sa bopp nga respecter sa bopp pour que nga mën a imposer le respect respecter sa bopp dafa bokk ci li nga xam ni éthique ak morale da koy bañ nga moytu ko parce que foofu lañ lay daaneele li nga xam ni doo ko def ouvertement maanaam li nga xam ne d'accord nga caméra àddina si sëpp wër la nga koy def boo wéetee bu ko def bu fekkee ni da ngaa bëgg a nekk un meneur bu fekkee ni fa ngay dem di bu fekkee ni Sweet Beauté ba mu dem mënu fa yóbbu caméra wu 7TV caméra TFM caméra wu yépp ba ci CNN bu mu fa dem waroo mën a def lenn loo xam ne dañ ëllëg dañ ko mën dañ la ci mën a xeeb mais est-ce que c'est pas un peu lié à sa vie privée loo xam ne concernewul kenn yoonu kenn nekku ci. mais le problème est que sa vie privée. Hmm. tant qu'il n'aspire pas à nous mener à diriger ce grand pays tant qu'il n'aspire pas à être le président du khalife général des Mourides tant qu'il n'aspire pas à être le président du de l'archevêque de Dakar hmm. tant qu'il n'aspire pas à être le le le, le président de du khalife général des Tidianes tant qu'il n'aspire pas à être le, le, le, président, celui qui va donner des ordres, celui qui va gérer et qui est capable d'impacter la vie du Khalif général des Laïens, des, des, de, de, de, des Nyassen, etc. Ces grands hommes-là et les grandes personnalités sénégalaises reconnues hmm. et acceptées, respectées de par le monde, tant qu'il n'aspire pas à ça, il peut aller s'enfermer avec qui il veut, où il veut. Mais quand on a des prétentions de mener aux destinées du peuple sénégalais, on se doit du respect à soi-même, par respect pour les Sénégalais. On ne va pas s'enfermer dans un jacuzzi avec des gamines de 20 ans pour des parties euh, donc de plaisir, de jouissance, aux frais d'ailleurs de ces militants, puisque n'oublions pas que l'homme depuis 2014 ne travaille pas, et c'est des Sénégalais qui se saignent corps, sueur et sang ay sénégalais ñooy ñàkk. est-ce que nekkoon di jaxase aussi. non non dëgg loolu ak Ousmane Sonko ay militants ñoo koy jox muy dund. Sonko mën cest à bi mu dalee liggéey yàgg na. il a des épargnes yoo xam ne moo koy permettre mu euh, euh, euh, subvenir à ses à certains certains besoins. baax nag. non bi lay sénégalais da ngeen <laughs> baax. non dañ c'est-à-dire que. dama ne. Mhm. bërëb bële. Hmm. xam nga ban xaalis la fa demee. xaalis bi ay doomu sénégalais yi nekk diaspora di dajale en se privant de beaucoup parce que xam nañu Europe nu mu méttee diaspora ay millions multimillionnaires nekk ñu fa. mais est-ce que xaalis boobu c'est pas pour les activités politiques ça c'est une activité privée. waaw mais moo tax nag waru ko woon yow fan lay jëlee ay quatre-vingt mille euh, massage quatre mains quatre-vingt mille la. Mm-hmm. daanaka bu dee mu ngi koy def deux fois par semaine ba moom nee na salaire gu député munu ko yóbbu euh, pour ñu defal ko massage professionnel. inspecteur des impôts et domaines. mais il dit qu'il n'a rien ba ñu koy cotiser loolu kay est-ce que c'est pas parce qu'il est devant les médias moo koy wax il n'a rien mais cela suppose donc xam nga le discours aussi c'est ça mais cela suppose que mu ngi fenn on est en géopolitique et c'est disqualifiant il est disqualifié il est disqualifié et ça il faut que lui-même qu'il accepte il s'est disqualifié lui-même parce que bu fekkee ni dafa fen militant yi ba tey ñuy cotiser di ko jox cela suppose que bu ñu ko joxee kees yi dina fenn di ko utiliser à son à ses propres pour ses propres besoins te loolu sax lay def. au sommet de l'État est-ce que amul d'autres